السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فوطاه وهو يرزق يا مكير لفتوها بليو وسكن ديخ أزيل عاجلا بالبسي محمد الدين حتى رقم الدين لها كان سيسر جوعين توا وحمي وكان هذا الورا وتريب لسما كان لك السماء ولا أيها ويا مساكين يكون أجيب بسير من حسنا دي محمد وتهول بفاء خمدانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في سيارة وعلى عبد الخديم وعلى عبد الخديم ñëpp ñu di siyaare waaw mu Moodu dafa am ko laaj ñaari laaj yu war ko xamante ne dafay laaj njaxas yooyu yooyu yu yi di sol ndax jiitu na na Cheikh a Cheikh Ibra am déet ak moj sóob yenn jëf yi muy jëf yooyu ñu wax ne ne mën naa nekk rek mu gong ko ci moom te mel ne lu wute ak Eh, am keneen ku ma laaj eh, suko bi du ko xam suko bi du ko talsam la wala yooyu eh, laaj mu njëkk bi ñaxas moom maanaam bu dee ci réew mi xaw ma mu jiitu xaw ci mu jiitu maanaam Cheikh Ibra phénomène boobu Cheikh Ibra laa xam ne moo ko moo ko moo ko génne ger ger na da ko doon doxe ngir critiquer société bi Euh, matérialisme bi amoon ni bëgg bëgg adduna gi amoon noon noonee Cheikh Ibra maanaa maanaa di sol loola ngir critiquer euh, maanaa léegi société bi xanaa maanaa liñ gën a fonk yooyu yëpp ay euh, Cheikh def ko ay dëggit wax nañ ci misaal ne ne mas naa ñëw ci kër delwaan saraxuñ ko mu dem sol mbubb mu baax dikk gaa yi ne ko bismillah bam ba mu kiyee daal di daal di yëg tibb sotti ci ci muumi daal di ah yéen kat saraxulit ma waaye ci waaye buum mi ngeen sarax loolu kon day critiquer kon société bi waaye nag phénomène bi feeñoon na euh, jëkk Cheikh bi da ci yenn réew soo de ca ba sapo sax am na fa ba ca Inde am na ca Iran am na ci am na am na ci suufenk yi ci réew bari yoo xamante ne ci penku waaw xam na xam naa nag njottu mën a Cheikh Ibra booba maanaam léegi am na fu ñu fu a gise loola man na man mën na am kon phénomène bi dafa dëppoo rek dafa dëppoo waaw maanaam société yooyu dañ koo xalaat mu nekk seen position ci euh, nangam Cheikh Ibrahim xaat ko mu nekk position ci nangam waaw loolu loolu kon euh, am na sax ñu koy misaal naan boobu boobaan day def ne te mooy euh, prix mu woyof mi xam ne ginnaaw boobu dong yi dañuy dañuy rawaan ñu sax leen. maanaam mos a sangam mos sangam ba mbari ñu def ko ëmb bu waaw loola loola mooy cosaanul saxir si rek waaw beneen laaj bi mooy ma suuf noonu noonu nga xam ne mën na mën naa indi loo xam ne mën naa def loo xam ne wut day saxir day wute ak ak ak ak Sëñ Tuubaa leeral na ko lu ñu al ñu ñu tuddee almalaa miti yoon yoo xam ne dañuy dañuy jëf-jëf yoo xam ne dañ koy làqtoo te te te jëf jëfuñu ko maanaam dalay tey ko suñu ko jaxate wax dalay tey def ba noppi di def lam la fee def maanaam da koy ci làqtoo ay dimension la lañ nekk yoo xam ne mën nañooy làqtoo yoo xam ne da nga boo yow ba sa sa bëti bopp da yaakaar ne li ngay gis réalité la fekk ne imagination la waaw ñu koy def ngir laqatu ko te suñu tubaab ñoo ñooy mën ulay weddi sëñ bi fa xaara aw kaana min waraihim malikun yaqudu kulla sabin nadin xasba noo ne ko Sirina Xudar defee woon euh, bën gaal ga te Sirina Musaa mi nga xam ne moom sariya lay doxal di jaaxal yoon ko waaye woon naka ngay ay bële ki xam ne dañu doon yóbbu mu ne ko ah, daa am xam ne mi mi ngi ñëw euh, fan yi dana ñëw si seet si waax bi du bu ñëwee gaal gu fi gën a taaru da koy jël moo moo bañ nag mu jël gaalam gi waaw ah, xanaa kon loolu kon xaqala batin la keneen ki ki laaj nag suq bi du ndax euh, ab tasam ak yooyu suq di yàlla xaw ma dara moom dara laaj xamut lasaar moom danaa yor ay ay ay ay way ndaram di di ko gëstu la ma ci gën a bëgg ci yàlla saar moo gën ko ko jaar soxla mooy luy faj nangam loo xam ne ne ometit wala nangam da koy giifal loolu la laa ci soxla waaye waaye ñi ci des moom doxewuma ko la may doxe man mooy tu yàlla ndax sama baay damaa waxoon ne ma kat euh, euh, restaurant ay pexe ay ay pexe la ay pexe rek mag ñi nag ma ma mag ñi nag seeni wax dañ koy tënk su su dee yàlla dogal na nga yàgg fa moom da ba mën a dégg juñ jee kon ay pexe rek la ndax noonee ko Cheikh Cheikh Aziz da baax moom euh, mari bu xëy rek ne maanaa euh, fatu sulmaan yi lay indi waaw du indi fatu fatu fatu nuraan yi moo tax moo tax man doxewuma ko salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh